alayhi salaam

fi ngeen nekk ni ci suuf si ngeen nekk mooy daarul xadim di suuf di kër ci kër Serigne Touba mu sanc ko ci ndigalal sëñ bi digal ko mu sanc ko ci ndigalam ci jamono sëñ bi nekk njaareem ci bokk ci ndigal yi nga xam ne moo ratoon bàyyi ko ci moom jaar ci sëñ Samba Kanni ak sëñ Fallu Cheikh Moustapha ak Karim sëñ Samba ñoo ngi laa ci jàpp ndigal li sant sañ ci dëkk yooyu yooyu sant moo sañ moo sañ ci dëkk bii nii Daaru Xadim kon barab la buñ sanc ci ndigal am lu ko tax a jug nag lu tax sanc ko li ko tax a jug rek mooy li sëñ Touba sañcee Touba moo tax a barab bi ndax barab bi kër la rek ci Touba mooy sanc na ko ngir jaamu yàlla ngir liggéey lislaam ngir taxawu mbindéef yi ni ko sëñ ci téeréem boobu ñuy wax ma la posé yi kon bërëb bu ndigal la kooko sanc nag di si Kan ni moom kenn la ci jàmbaar yi yi àndoon la Sëñ Tuubaa di ku ci ràññiku lool nag ci ràññ googu ay firnde moo ci teg yu wér bi mu nekkee mbokkum sëñ bi ci wàllu askan jey ko lool doomi nijaayam ndax moom Serigne Moussa bi mooy waajuram Serigne Moussa bi mooy nijaay Serigne Touba Xaadimu Rasuul kon ci wàllu mbokk dafa sëcc moom rikk waaye nag loolu da koo jaayoon mbokk googu da koo jaayoon jënde ko taalibe bi jaayanteeg Serigne Touba ci lislaam jaayanteeg moom ci iraada sadiqa jaayanteeg moom ci liggéeyal boroomam sëñ Tuubaa nangul ko ko nangu mat sëkk yàlla mayoon ko tawfiix nag ci sëñ bi tawfiix joo xam ne nii ña dund moom xam nañ ko seede nañ ko baax a baax ndax ku yàlla mayoon tawfiix la ci bëgg sëñ bëgg bu ràññeeku bu wér goo xam ne nii raxu dara gu gu kawe njort ca xam ngeen ne cofeel mooy tànk bi gën a gaaw ci am ngërëm yàlla yàlla mayen ko tawféex ci sopp Sëriñ Tuubaa sopp goo xam ne nii bu dëggu la bu wér la bu fees dal ab xolam la cofeel googu ci la sukkandiku ba am ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi cër boo xam ne nii kenn amu ko ci ni ko mag ñi daan waxee ne moom day dañ koo xaasal ci Sëriñ Tuubaa ngir cofeel gu réy gi mu am ci moom ba tax na mu amoon cër bu rëy ci sëñ bi lool mag ñi mu dëkkalu daa ko sedd bu baax a baax xista yu bari ci yooyu xaj na jataay bi gàtt na diñ mën ak ci yooyu xis yu bari yu mel noonu waaye moom diggante bu suñu tubaab moom diggante bu yéeme la bu deewaar la moom suñu sàmba kenn bisu moom ak dundam guddul waaye li muy gàtt gàtt jeexal na ko ci lislaam ji rafet xam-xamu sharia bu wér ak nekk taalibu Sëriñ bu dëggu waaye bu ko liggéeyee liggéey bu wér ànd ak jëf yu rëy rëy bàyyi ko fi ànd ak taxu mbokk gi baax a baax a baax comme ci côté diggante Sëriñ Tuubaa mat na sëkk dara des moo tax am lépp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

لمن أنزل الآية التي قلت لي بها كتابا عزيزا بينا الحق بالفصل لساني والأوثان وعبد المؤمن الحليم فكلي بلا لا أنت الخليل لي ويا خير ثابي وثرواك لم يخلق لا أنت الخليل لي ويا خير ثابي وثرواك لم يخلق لا أنت الخليل لي ويا خير ثابي وثرواك لم يخلق يسوركم مني حيث ما كنت يا مهيب أكرم كريم إكرام من ما تفعل وكل ما أردت من تفعل آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فرديت أنت باركت لي يا ربي بالقلوب استطعت كلما كافأني من ماله وفنأت بما لخير ساغت كل من جاءك rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaara te di leen sant baax di leen gërëm itam di rafetlu seen teewaay ci bis bi nga xam ne moo bisu sëñ Massamba Kanni Bousso. Euh, kon ngeen fekk fi euh, donga yi nga xam ne ñooy dongay sëriñ Massamba Kanni Bousso ñu nekk fii nga xam ne mooy waañ wi ñu taxaw fi euh, taxawaay bu mat sëkk boo xamante ne bi lépp jëm ci wàllu organisation bu màggalu ma Massamba Kanni Bousso Euh, kon fii euh, daayira yi nga xam ne mooy daayira fédération Serigne Massamba Kanni Bousso ñoom ñoo nekk fii ci euh, waañ wi fas yéene taxawel li nga xam ne mooy liggéeyu waañ wi yëpp ak mboolem lépp lu ci aju itam nga xam ne kon saa boo xamante ne bi jàpp nañ bis bi itam alaakuliyaalin donga yëpp danañ laxasaa itam jàpp ci li nga xam ne mooy liggéey bi bu ko defee itam lépp loo xamante ne bi wàllu euh, liggéey li itam daañu maase ci ànd euh, taxawu ko defar ko ba mu gën a rafete gis nga fi nga xam ne fi lañ nekk mooy euh, waañ wi lu mot juróomi fan a ngi ni dong yi nekk fi jàpp ci liggéey bi ci wàllu baas yi li nga xamante ni itam mooy seetal li nga xamante ni mooy dëkk bi ak li nga xam ne mooy kër gi itam waaye li nga xamante ne bi mooy euh, wàllu euh, togg gi nga xam ne moom la ñuy def ci xéewal yi nga xam ne moom la ñuy joxe ci màggal gi itam loolu yëpp doon ab liggéey bu rëy boo xamante ne bi donge ñu ngi koy def nga xam ne kon euh, gis nañ waañ wi lii lépp ay yoo xamante ne bi li mi ngi jëm ci li nga xam ne mooy bisub Serigne Massamba Kanni Bousso bi nga xam ne mooy suñu yaakaar ci buntu bi ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul nga xam ne kon euh, xéewal yi mi ngi nii euh, suñu xëyee ci bis daal li nga xam ne moom lañ njëkk a def mooy jàng alquranul karim jàng euh, xasida itam waaye ci wàllu waañu itam gis nga ko mbokk yi jigéen ñi ak góor ñi itam kenn ku ci nekk yaa ngi jàpp fi barab ñi ngi def ay xéewal ci wàllu xewal yi muy ndox ak café ak yeneen ak yeneen yëpp rek xéewal yëpp rek tubaar fakàlla masàlla lépp matale na ci li nga xam ne mooy bisub Serigne Samba Kane Euh, bis bi nag doon bis boo xam ne bu rëy la ci ñun amuñu benn bis bu ko gën a rëy ci ñun ñi nga xamante ne bi ñooy euh, mbokki euh, taalibe Kër Samba Kani bi ba tax na itam bis bu saa bu ñëwee itam nii lañ koy taxawee rek suñu ñëwee ci bis bi itam dëkk bi yëpp fépp foo xamante ne bi rek doomi Serigne Samba Kani nga wala ab sëtam wala sëtaatam fenn fu ci nekk rek nii lañ fay taxawee rek ci dëkk bi yëpp rek ba mu taxawaay bi mat sëkk itam ci wàllu organisation bi organisation bi itam dafa nekk loo xam ne ay kuréel yi kuréel la yu bari ndax kuréel gu ci nekk rek euh, ak la nga xam ne moom lañ ko dénk am na ñoo xam ne ñu ngi leen dénk li nga xam ne mooy wàllu togg gi waaye am na ñoo xam ne ci wàllu ndox mi lañ nekk itam am na commission itam yoo xamante ni bi itam euh, ci wàllu ndugg mi euh, muy jëndum bagage yi am na ñoo xamante ni itam ñi ngi nekk ci wàllu euh, bagage yi ñi xam ne ñooy saytu wàllu bagage yi yooyu yëpp doon xam loo xamante ni ay kuréel yu bare baree bari yoo xam ne benn bu ci nekk rek ak la nga xam ne moom lañ ko féetaleel ngir mu di ko def ci bisu Serigne Touba euh, bi nga xamante ni bii mooy Cheikh Massamba Kanni Bousso nekk suñu bunt ci Serigne Touba Xaadimu euh, Rasul ndax ma sàmba dafa nekk kenn koo xamante ni kii kenn la ci waa kër Serigne yi ndax dafa nekk mbokkam moo xamante ni mu sës rëkk la ci moom waaye mbokk itam mu bàyyi woon ko fee nag def li nga xamante ni mooy ab taalibe nu itam nag nu ñëw nag takk ko laxasaayu nag nekk ay donga yoo xamante ne bi ñu topp ci yoonam woowee nga xam ne ci la nekkoon euh, kon euh, bis bi nekk na bis boo xam ne bu la ci ñun daal sëriñ bi noonu lañ ko mën a tënkee wajaba abdul xaali xiramaani ala الاسمان الحمد لله بشير من إبيات ثم سلامان على بابي رسيات فوز جميع عالمين الخير سيدنا محمد ذي الخضرين أجلس بي بملك غيلي سنوب ربي أسلك أموري كل أيام رشدني إلما الولد دا إلي خذني منال